man eh, bi ñu ma falee ma nekk maire bi ma ñëwee rek dama gis ni cadre de vie bu cees dañ ko agressé eh, ci fànn yëpp eh, dëkk bi tilim na dëkk bi amul sécurité dëkk bi xale yi suñu bëggee génn amul ñu fu ñu dem dëkk bi amul jardin public tali yi bëri nañ suuf ci boppam dëkk bi lëndëm na këris yooyu yëpp soo ko xoolee et eh, ñi ni la ñun ñooy deuxième ville du Sénégal ma ni le cadre de vie dañ ko war a protéger moo bi ñu ñëwee rek dañu lancé benn opération boo xamante ni de nettoiement pour fexe dëkk bi set bi ñu ñëwee ñu waxtaan ak ñu mel ni ay UCG c'est l'occasion de les féliciter de les remercier ñu gën a góorgóorlu ak FERA bi ñu am ñu gën a góorgóorlu fexe ba dëkk bi set ñu gën a góorgóorlu fexe ba suuf yi nekk ci tali bi ñu ñu wàññi vraiment liggéey ci bu baax a baax ensuite ñu def opération ville lumière gis ngeen dëkk bi ni mu lëndamee woon mais ñu def aussi ville intelligente daal di indi euh, wifi gratuit ci promenade bi mais loolu lépp baax na mais dëkk dañ koy organiser du fu la neex rek teg sa du fu la neex rek ubbi boutique du fu la neex rek dem mbaar ndax am nga loxo bu gudd parce que xam nga diw du fu la neex rek indi sa panneau publicitaire gis nga bi ma ñëwee euh, dama am beaucoup de demande de panneaux publicitaires je leur ai mënuma autoriser benn panneau lu dul defuma de l'ordre dans la ville ba pare depuis six mois maa ngi ci dossier boobu am na ci ñu bëri def nañ pression ni yaa ngi ñàkk xaalis bu bëri mais ni c'est vrai parce que panneau yooyu mën mais il faut comme mette de l'ordre panneau yi nekk ci dëkk bi nga xamante ni ay grande entreprise da ngay xëy rek teg sa panneau commencer déedéet je dis damay mettre de l'ordre ci panneau yooyu ba pare buñ ko defee ba pare après ñu organiser waat ko bu nit ñi poser seen panneau fekk respecté na les normes lañ war a jox dëkk bi ñu ngi koy war a jox lañ war a fay yeneen communes yi ñu fay ko su ko defee ñu am une ville organisée loolu moo tax ñu engagé opération de désengorgement bi oto yu paan yi yi nekk ci kaw trottoir bi ñu yëkkati leen kiosque yi nga xamante ni respecté ñu benn norme ñu yëkkati leen support publicitaire yi nga xamante ni nekkuñu en régle ñi yëkkati leen lii tilim tilim yi nga xamante ni yëpp nekk na loo xamante ni rafetul ci bët ñu ñu dindi leen lu mel ni mur bi nga xam ne Auchan moo ngi ko fi doon def te respecté wul benn norme respecté soo ko waa Thiès lu dul ay souvent ay ay ay ay objectifs commerciaux sa bopp rek nga bëgg xëy nga ne da ngay enfermer place bi euh, je dis loolu manque respect la loolu man du ma maire buy nangu loolu je pense que ni loolu moo tax ñu engagé opération boobu pour protéger le cadre de vie de de de de Thiès parce que Thiès war nañ am cadre de vie boo xamante ni am na sécurité cadre de vie bu neex cadre de vie boo xamante ni ku bëgg a génn dinga génn dinga am foo mën a dem ci loolu laa wax ni tey jii dinañu réhabiliter jardin bi nekkoon Mikelane amoon na Euh, bu ñii bu ñuy nekk xale benn gédo gédo bi jiitu ci cees jàpp naa ni moo fa nekkoon dinañu ko réhabiliter je mettrai les moyens sur fonds propres on va engager les travaux e su ngeen ñëwee ci promenade bi am euh, am na lu ngeen ci gis agora bi aujourd'hui ñu ngi ci dañu koy euh, réhabiliter jardin camp bi nekk ci suma gannaaw ñëpp xam dañu dem ba fàtte ni sax jardin la woon jardin public la dañu koy réhabiliter avenue Léopold avenue Camp bi ba ca porte d'entrée ba dañu koy réabilité pavage bi aussi gis ngeen ko tàmbali na c'est vrai que ñu bëri ŋàññi nañ ma ci ndax liggéey bi dafa yéexoon oui liggéey bi dafa yéexoon ndax entreprise bi nga xamante ni moo gañe woon marché bi respecté buwul woon waa cees bi mu tàmbalee je lui ai dit que ni lii ñime woo ko liggéeyal waa cees duma ko nangu ma nekk ak moom ci xeex bu métti c'est vrai que nit ñi comprendre ñu woon mais tey jii AGETIP comprendre na ba xam ni li ma leen doon wax mooy dëgg indi nañ ay pavé yoo xamante ni méngoo na ak dimension Thiès méngoo na ak tolluwaayu Thiès méngoo na ak bëgg-bëgg waa Thiès ndax dëkk bi boo leen di liggéeyal da ngay am respect ci ñoom am xorma ci ñoom aujourd'hui yaakaar naa ni AGETIP sax d'accord na ni entreprise bi li mu liggéeyoon baaxul AGETIP day ñëw enlever enlever li entreprise boobu liggéeyoon tàmbaliwaat ko à zéro indi ay pavé yoo xamante ni bi ñu indee pavé yi dama dem école polytechnique ma woo le directeur de l' école polytechnique te polytechnique ma ne ko indil ma ay expert ñu ñëw xool ko ba xam est ce que pavé yi baax na méngoo na vraiment ak bëgg-bëggu waa Thiès. et et vraiment liggéey boobu yëpp ñi ngi ci ak suñuy service technique pour vous dire que di daal ñun la cadre de vie à Thiès dañ ko bëgg protéger fexe ba Thiès nekk une euh, ñu xam ni c' est une ville évidemment c' la deuxième ville mais nous notre ambition mooy Thiès nekk. la première ville touristique du pays Thiès nekk la première ville industrielle du pays Thiès nekk la première ville économique du pays et sociale Thiès nekk la première ville politique du pays parce que Thiès est la va être la capitale économique de notre pays à partir de ce moment avec l'aéroport avec l'université tout ça dinañ xam ni Thiès la affaire yi nekk Thiès non Thiès waaye du ñu sëgg parce que ñun rafetlu d'abord euh, conseil des ministres décentralisé boobu ñu indiwaat ko Thiès ndaxte Babacar xam nga ni du chaque jour rek ngay am chance am tout un gouvernement ci sa dëkk du chaque jour aussi ngay am chance am président de la république mu ñu après tout on est dans une république euh, mairie du république mairie démembrement la ci biir république bi démembrement la ci ci biir état le maire de Thiès que je suis euh, war a wax au nom des population de Thiès man républicain la loolu la population du Thiès di xaar ci man ñu liggéey fexe ba gouvernement bi buy ñëw dinañ am condition yoo xamante ni dinañu mën a liggéey liggéey boo xamante ni njariñ la lépp njariñu Cees la man benn baromètre laa am waaw chaque jour dama koy wax Babacar eh, bi gouvernement bi di ñëw dama woo convoqué une réunion à la mairie les services de la mairie dama leen a woo ma ni leen maire u waxuma Babacar Diop la maire de Thiès maire laa wax de maire amul parti Warso maire amul ethnie maire amul religion maire laa wax waxuma Babacar Diop maire Thiès amul parti amul coalition maire boobu comme président de amul parti amul coalition bu fekkee président kon maire dafa war a waxtaan ak président ak gouvernement boobu conseil des ministres boobu déroulé wu ci ni mu gën a rafetee lépp nekk njariñu Thiès ndax man loolu dong ma tax a jóg loolu rek moo ñor loolu mooy sama combat gouvernement bi ñëw bàyyi fi lu bëree bëri ci ay retombe ci ay infrastructure ci wàllu économie ci wàllu sociale ci wàllu éducation ba Thiès nekk dëkku Sénégal bi gën a nay bi gën a naat bi gën a rafet